mel ni golo ko dee weeru koor ngay nelaw rek day sa sant dangay jóg di yow weer yow doo jóg ngay nelaw rek weeru koor day nelaw rek tëdd nga ngang rek di nelaw donc la de waay doo ko tëdd waay ndaw wé ama ndaw la liggéey papa weeru koor kenn du si nelaw rek oh oh ay fan oh ay fan la <laughs> for. xam nga loolu moo gën a neex si xolu yaay nga di ko woyal way yu neex mais kenn du sama yaay. lan moo gën a neex si xolam Baye. ah, ah daal moom peut dafa nekk man daal yaay bi moo nàmpal yaay ji la nàmpal jox la weenam daj ci lu ne yaay moom kenn mënu ko fay mais Baye moom. jakk mo bàyyi dal comme ay ki dal man dal yaay dal la gëna fonk ko bàyyi amana tay ko do ñu wax amana xam ne bañ man bëgg na loolu ndax daxaa dah am la maa nga fàttaliku la si biir semaine boobu boobu boobu boobu su lay ma oo in embauché ma waaye nag ama ndaw ma daj ci aw nag lan ma daj ci aw lan moo ne dugal na ma la école ya baax yëpp ñu na ma la franco arabe yëpp ngir jàng moo ne benn côté bi wàccoo na ma bax aw de masulaa sol la sa morom sol ñàkkulaa dara ma tuddee la nag kaa xam ne nii représenté na ban fane si la ne mu la bàyyi ama ndaw tinga wala si turam kaa xam ne kenn mësu kaa yab si bàyyi mais de nit ki dinaa jël juróom-ñaari jikko ci moom waaye aw nii ma la jàngate di jàngat sa turandoo jëm laa ci benn si moom te loolu gàcce la loolu gàcce la ma bëgg nag ngir yàlla ñu def yéen nii ulaw takk nii ak yi law def ku arrêté ko ku bàyyi ba du lay dara ku xam ne man sa bàyyi am na ma la ma présenté fii si kër gi hmm, dëkkandoo yi fii yërëm ñu yërëm ma man udah ab ciir ketemu ma saya, sa yaay yërëm sa rakk bi xam ne aw kenn naw loow la si gox ka àndax doomam wala oo doomam sax mu ne ka bon ci bari ka am na loolu ñu si appoon loolu di

avant tout dama lay remercier bu baax mais dama la bëgg wax ne tay sama yaram dafa taw hmm. sama deret di waxu du dem ma ci sama yaay nee ma man bi ma juddo dama àndaale xéwal àndaale wërseuk wallaay loolu wax ah, na sama yaay moo ko wax ndax sama yaay lu ma neex neex na ko yow boo toppoon si yaay lu la yaay wax nga wax ma ko du demee nii mais papa dama la bëgg tey danga tawal sama yaram comme wax nga loolu yépp dégg naa la jour tey bii dinaa taxaw changé ba nga xam ne sa doom bi changé na waaw ko defal lépp loo soxla si lu jaamu sànni bi ndax moom it ñu ñëw ñu ko mën a rek ko bàyyi ci xel daal loo wax rek dinaa ko def maa ngi yëg si biir mais nag nelaw yi baaxul yow nag. weeru koor kenn du si ngalañ rek nelaw du def nag du la ne baaxul ci yow de da ngay dem si bàyyi fële si de comme nee na ma dina sant alhamdulilah ndax man moom fit moo ko commencé commencé ragal. man ama ndaw man fi ma wax a wax a wax a wax yëpp te sa jur rek dana gën a tuub dana gën a naan dana gën a pàkkatiku rek la def ndax na ma ko ma la suuf ah ñoo ko loolu yëpp yëpp foog nañu ko suuraale waaye yàlla na si yàlla jiw xaaral ma oo sëñ Modou Gueye ne ko doon féema waaw allo sëñ Modou Gueye alhamdulilah barikalla kay kay yaa kay sëñ bi waxtaan na ma ama ndaw ba noppi fi nii nag jël na décision changé changé kon moom dina ma ko mën a andi dina ma ko andi dégg nga ba ma ko rek ku dexal ma si moom lépp ba léeg-léeg ka picc rax léeg ka solax la moo kii dexal lépp dexal ma li ma rek waa kay jaraafat jaraafat ci suñ kay dégg maa ngi laa ziar ne Habib Habib Habib waay Habib jërëjëf jërëjëf